Ah, le droit à votre service émission bi nga xam ne moom mooy traiter les questions juridiques les cas mais aussi l'actualité de manière générale tey nag ñu ñëw ci benn point boo xam ne je pense que ni c'est l'actualité mooy la gestion des collectivités locales mais aussi problème yi nga xam ne dañ ko d'autant plus que gis nañu les agents des collectivités locales depuis quelque temps ñu def des grèves donc une revendication pour ñu que ce sont donc on a eu la chance donc d'avoir un maire tey ñu am ki nga xam ne mooy Djibril Wade donc nekk maire bi xam ne commune yi moom la ñu dalal bëgg waxtaan ak moom ci waxtaan bi ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak li téléspectateurs. merci beaucoup maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu nga xam ne ñoo nekk 7TV yi nekk Sénégal yi nekk dans la diaspora yëpp. di rafetlu jotaay bi. di ñaan yàlla liñ fi wax ñu wax ko ci kàddu gu sell bu baax et yàlla na yàlla taxaw ba ñu mën leen tontu ci tontu bu rafet. merci beaucoup monsieur le maire bu njëkk les agents des collectivités locales nga xam ne yéenay seen i cheikh li nga xam ne mooy l' exécutif local boobu ba dañoo nekk en di demander une augmentation des salaires mais déggu dégguñu leen ci li nga xam ne mooy wax ci d' quels sont les impacts ci wàllum liggéey bi mais aussi bu fekkee da ci àddu nan ngeen ci war a àdduwee. waaw dafa naa ne boobu boobu ba léegi ñu àddu ñu ngi wax mais malheureusement ñun euh, les maires euh, pratiquement jotuñu toog waxtaan suñu biir am am une position commune defe naa ne fi ñu toll nii c'est l'AMS qui parle à notre nom mhm. mais ce qui est sûr mooy ñu ngi traversé ay période yu xaw difficile te extrêmement difficile mhm. surtout période bi nga xam ne moom la ñu jógee parce que ouverture de ouverture d'école moom mu ngi doon am mhm. euh, xale yëpp dañu extrait de naissance du ay kayit tey bu ñu paralysé maire bi xale yi amuñu ko suñu doom yi amuñu ko suñu sër yi amuñu ko dafa nekk loo xam ne dafay metti ensuite ñi nga xam ne dañu bëgg voyage ñu am ay cas yu des extrêmement sérieux yoo xam ne dañu am maire yi liggéeyuñu surtout ñu paralyser euh, l' état civil et mhm. état je pense que c' est la vie waaw mhm. ah, parce que état civil mooy mooy mooy juddu mooy dee mooy mariage mhm. loolu dafa naa ne kenn waru kenn waru ko paralyser loolu nag dafa may euh, xalaat loo may euh, wax ne nit ñi war nañu xool droit de grève bi nag dañ koy exercer quoi

quelqu'un qui a un contrat à durée indéterminée. Mhm. war a am amoon actuellement benn salaire bu 150 000 francs tey ñu war ko doublé salaire bi mu war a fay 300 mhm. ko posé. ci diggu année bi. Mhm. mais ñun fan la jël recette yooyu ce n'est pas possible mënul nekk. et ensuite mënuñu ko maire yi na maire yoo xam ne amuñu ressources yooyu. war naa benn ñaar wala ñetti maire yoo xam ne mënuñu ko. mais maire yëpp tolluwuñu ay ressources. tolloo ñu aussi ay nit tolloo ñu aussi personnel. Mm-hmm. donc bu ñu jëlee bu ko uniformiser rek sànq otaa du état dugal ci loxoom rek dafay nekk loo xam ne dafay compliqué donc loolu moo tax ma ne syndicaliste ñun li ñuy wax. Mm-hmm. ci li li li ñuy nga xam ne moom lay jànkonte ñoom ñoo ñu gën a xam donc moo taxoon vraiment man ñu leen doon demander à ce que vraiment ñu suspendre ce mot d'ordre de grève là mm. heureusement que actuellement ils sont en négociation avec l'État mm. et que quand même xaw nañu wàcc wàcce seen seen loxo quoi mm. loolu baax la mais nag ça nous a causé d'énormes préjudices waaw d'énormes préjudices d'autant plus que aujourd'hui le droit de grève on est d'accord c'est reconnu mm-hmm. par les lois du du pays mm-hmm. mais aussi am na leen loo xam ne aussi ñoom moo leen war parce que ñoom mënuñu toog ba ñu liggéey aussi bu ñu dee ñu fay leen loolu aussi loolu tam c'est problème kon boog seen grève bi donc dafa impacté bu baax a baax li nga xam ne mooy les collectivités locales ci aspect yu aspect yu bëri alors que ñoom c'est un droit c'est vrai war nañ ko mën a mais aussi il des obligations yoo xam ne mi ngi seen noonu c'est-à-dire dafay impacté parce que d'abord ñoom travailleurs ñoom ñun le maire le conseil municipal moom damay wotal budget mais budget man maa ko dem wuti ñoom bu ñu nanguwulee liggéey nag laa leen di fayee ça pose problème. Mhm. et d'ailleurs moi damay raisonner en tant que chef d'entreprise. Mhm. man entre man mi nekk dans je suis dans privé yow su ma la jëlee nga may liggéeyal. Mhm. ci li may liggéeyal ci laa lay fay. dëgg may liggéeyal un million ma fay la salaire trois cent mille. mais boo ma liggéeyalul dara war waruma waruma la mën a fay. donc moo tax may demander toujours syndicalistes yi quand ñu am raison garder à la fin du mois ñu demandé à ce que ñu leen di rétribuer di di fay salaire. vraiment loolu moo amul ci benn dëkk Sénégal rek la am. war nañu uti beneen méthode boo xam ne méthode de grève comme ñu takk les brassards rouges comme ni ko président Abdoulaye Wade doon wax merci beaucoup comme disait le père le père Wade. Mm-hmm. dañuy takk brassards rouges mais dañu dem grève sax mais bu ñu demee grève. ah fin du mois aussi. bu ñun euh, euh, euh, waruñu leen fay. mais grève bi dafay niroo benn genre benn genre chantage et mun naa ko tuddee sax école buissonnière. Mm-hmm. liggéeyuloo ñu fay la. et puis période bi nga toog war ko liggéey nga dem liggéey leneen. loolu aussi baaxul comme le foo comme le comme le foo le conseil euh, ni ni ko corps enseignant bi defee. Mhm. dañuy bañ bañ a jàngale yoo xam dem ci privé yi jàngale dem ci kër yi di jàngal suñu doom yi. Mhm. loolu aussi baax baaxul. Mhm. kon Sénégal tàmm nañu loo xam ne aussi bu ñu jubee élection rek.

ci biir liggéeyukaay bi. waaye warul euh, enfreindre à la bonne marche du pays ak nit ñi ni ñuy doxee. te xam nga tey moom grève rek ne maire bi euh, am na ñu bëgg grève am na ñu bëggul grève mooy tey kenn du fi liggéey. ñu fiy liggéey sax nga ñëw dóor sànni xerew tout ça wala état civil nga ñëw lakk ko wala yooyu yooyu aussi baaxul quoi. Mm-hmm. tey ma ne aussi euh, du ma jàngi kenn du jàngi. yow tu as le droit. ah c'est la liberté jàngiwu ma jàngalewu ma. liggéeyuma mais bàyyi leen ñu bëgg liggéey suñu ñu liggéey loolu loolu lañ leen di ci njëkk ak ci teranga ci ak ci teranga mais c'est vrai que aussi l'état de den saay dafay dafay xaw a négliger li nga xam ne mooy les mooy les revendications moo tax booy xool les sénégalais bu ñu jotee ci li nga xam ne mooy période électorale dañuy mën a def li nga xam mooy seen revendication dina ñëwaat ci beneen question bi nga doon wax waaw mais foofu aussi mhm. ñu xam ne état bi ñu fi nekk def nañu lu ñu bëggul ñu nous avons tous les cinq ans pour sanctionner un, euh, un gouvernement ou bien un président de la République si le président de la République am na lu mu xool def ko suñu ba bëgg nos aspirations taxawu ci mais ñu xaar nañu muñ xaar bu bés bi bu jotee ñu sanctionné ko nañu liggéey bi nañu wàññi politique bi dem liggéey voilà merci beaucoup surtout ça mhm. ñu wàññi politique bi dem liggéey et puis ñu xam ne aussi ah Sénégal dañuy kaas loo xam ne dañ ci jaar ba pare xëy xëy rek ne dafay dañ xam nga la plupart des recrutements dafi tax doon c'était pas des recrutements jël ñu nit ñi parce que lañu mënoon liggéey wala dañu am tel niveau wala tel niveau wala niveau. recrutement politique la. ñooñu dem nag ba toog ba am toog ci fu dëgër. am assis léegi ñu def ay revendications bëgg a bloquer le système loolu baaxul. l'essentiel mooy ñun les maires. Mm-hmm. nañu arrêté les loolu lañ ko arrêté. Mm-hmm. nañu liggéey. dañu xool la nga xam ne moom moom doxal même ñu koy def mais fu am benn transition ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy liggéey ñu jéem a seet ndax dañu améliorer seen condition hmm. parce que aussi nit aussi mën la di indil xaalis xam la hmm. te doo ko fay bu baax tey boo xoolee ñi nekk ci marché yi di juuti ñu liggéey ci yu bari nekk ci mbedd mi tout ça hmm. ko xam daf lay indil xaalis il a salaire de cinquante cinq mille francs y a un contrat à durée déterminée. xam nga ñoom liggéey si fii et puis ñoom ñoo liggéey bi. di fi indi xaalis ba pare et ils sont ils sont mal rétribués. Mhm. mais aussi yow bu leen bëgg liggéeyloo. Mhm. te aussi bëgg nga aussi lu ñu saa si ñu jub. Mhm. il faut nga fay leen fay bu baax. parce que boo jógee sa kër. bàyyi sa jabar mu feebar wala nga bàyyi sa doom mu feebar nga dem amoo da yoroo dara bu ñu la dénkee xaalis xaalis bi boo ci defee dara rek ki la ko sax ci li nga xam ne mooy sa efficacité liggéey aussi. Mhm. loolu mooy loolu mooy wax ci mais actuellement gis nañ am nañ des avancées ak le ministre ñu ngi def recensement bi yéen au niveau de la commune Biscuiterie fan ngeen toll ci li nga xam ne mooy recensement bi mais aussi parce que recensement bi dafa am ñu mu àndal dafa war a ànd bi pour ñu xam vraiment nan la catégoriser la personne fan ngeen toll ci recensement boobu. Euh, assurer une transition jël ay agents yi xam ne ñoo ñuy liggéeyal et ils apportent un ils apportent un plus. Mmh. moi maire chef chef aw def liggéey bi yëpp. Mmh. aujourd'hui il y a un conseil municipal qui me vote un budget. Mmh. bu may surveiller mais man je dois m'adosser si ay travailleurs yi xam ne c'est ay travailleurs li may liggéey ñoom ñoo ko a liggéey. et mon travail c'est de faire travailler les gens. donc tey dans les recrutements ciblés tout ça et tout ça tout ça il faut am na fi. wala koo xam ne aussi mun naa ko former defar ko defar ko euh, euh, euh, préparer ko former ko. pour que mën a assumer certaines fonctions yi loolu aussi ñu ngi ci taxaw par exemple aujourd'hui la promotion interne il faut ñu def ko. loolu loolu aussi ñu ngi ciy ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy xalaat. donc aujourd'hui mm-hmm. maire bu ne ak sa cas man je demande à mes travailleurs nañu toog xool dañu am ñu bokk. seet ndax lañ koy fructifier maintenant nag dividende yi bu ñëwee ñu seet ndax lañ koy seddoo ñu xool na lañ ku nekk a am ko nañu liggéey ba pare a mën a fayee ko tànk da nga wax lu am solo mooy recrutement bi nga xam ne mairie yi aussi ko ñu ngi koy def la plupart du ko fi nemmeeku ba tey mooy recrutement qui est ce que tamit loolu tamit yokkul problème bi ci wàllum vraiment les agents des collectivités moom laa sax mooy mooy weer problème bi mhm. loolu il faut ñu ko et même euh, problème lan doon mel doo xam ne APR bi euh, Pastef bi PDS bi Benno Bokk Yaakaar bi la preuve et ça aussi dama ci sant yàlla mhm. depuis que je suis devenu maire mhm. pas plus tard que vendredi quand j'ai repris mon euh, lu ñu indi euh, unanimement doo xam ne PDS doo xam ne ci parti bi wala kële wala kële mhm. conseil municipal dañ koy voté Euh, dans le fonctionnement de la mairie dans le fonctionnement du conseil municipal initiative yi ça vient à la base. Mhm. dafay jóge ci conseil yi. wax ñu waxtaanee ko ba tënk ko ba nga xam ne au a du ma ne am nañ unanimité mhm. mais dañu am loo xam ne un vote consensuel te loolu lañu am ba léegi amaguñu jour suguma foo xam ne benn euh, au niveau du conseil municipal mhm. moo am quelqu'un qui a dit non il peut avoir deux ou trois yoo xam ne dañuy à soutenir mais lan moo indi parce que on est tout temps ensemble. Mm-hmm. ñu ngi waxtaan souvent. Mm-hmm. doo gis clivage politique yi amu ci. amu ci c'est vrai nous notre parti c'est le parti de la biscuiterie. Mm-hmm. loolu au moins yàlla may may nañu ko. mën nañ jàpp ne loolu c'est c'est une exception mais boo xoolee yeneen yeneen yeneen yeneen mairie aussi c'est-à-dire loolu noonu clivage boobu noonu dafa nekk benn problème boo xam ne dañ ko ciy nemmeeku bu baax mais dinaa ñëwaatam ba si si viabilité. loolu sax dama la euh, a bi ñu bi ñu élire suñu bureau Euh, y a eu un recours de, de, de, des associations de femmes au niveau euh, du tribunal. Mhm. ñu cassé le euh, le bureau. Mhm. bureau bi ñu defaraat ko. Mhm. mais amul benn coow. on ngeen li nga xam mooy la parité voilà je respecte la parité. avec les avec les femmes ngeen géré ko donc mën nañu jàpp ni commune bi c' est une exception par rapport ak li nga xam ne mooy as boobu dina ñëwaat un peu viabilité parce que lépp dañ koy teg ci li nga xam mooy viabilité mairie boo xool Sénégal comme ni ñu koy jàppee quelques deux ou trois mairies ñoom ñooy am benn force financière financière boo xam ne dinañ mën a gérer le reste yëpp je pense que ne dafa am ay problèmes yu si nekk donc viabilité boobu noonu muy wax ak le président de la république politique décentralisation boobu noonu muy wax pour mieux donc préparer le mairies est-ce que desul bu baax a baax a baax a baax. desul lu bëri bëri. Mhm. je le mot comme mhm. mairie de plateau qui la. à côté yàlla la avec Mame Fall qui a trop de problèmes mais bu ñu la mbooloo ñu nekk benn. waaw c'est équilibre na am. c'est mieux waaw loolu c'est c'est extrêmement important man maa mairie mairie de Biscuiterie yi. Mhm. je suis sur moins de 30 kilomètres carrés. 100000 mhm. habitants plus de 100000 habitants. xool densité boobu nu mu forte. Grand Dakar ak Biscuiterie yi ñaari tali moo dox seen diggante. ñu ñu tas leen ñu séparé ñu. Mhm. loolu tamit du ma fay man gëmuma loolu li ma gëm mooy ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie yi. HLM. même les SICAP waroon nañu mën nekk benn mairie. war na war na mën dana am doon am viabilité sur le plan culturel sur le plan sportif. Mm-hmm. et sur beaucoup de plans. di nga mën am benn visibilité bu rëy et puis am benn vision économique. ci loolu quoi et même une vision boo xam ne d' organisation sportive. Mm-hmm. parce que bu ñu amoon aujourd'hui par exemple benn arrondissement benn mairie dans cet arrondissement je pouvais faire un parce que dina am ci biir terrain basket na am ci biir terrain football na am ci biir terrain handball na am ci biir ring de boxe yëpp quartier bu nekk ma am lu fa def comme ça loolu ensemble yu nekk ne ne nekk benn. kon au moins sama dina ñëw un ci politique yooyu ngay wax ci politique euh, économique ak culturelle parce que gis nañu un peu phénomène immigration mais balaa loolu dañuy ñëwaat un ci viabilité bi ngay wax c'est-à-dire bu ñu tey jii nii nañ ko def ci ay wax mais je pense que bu ñu dajale woon li nga xam ne mooy mairie au niveau de Dakar loolu dina nekk benn étape boo xam dañ koy teg ci wàllum viabilité mairie comme ni mais écoute mais je pense que il en va de soi. Mhm. et je pense qu'aujourd'hui il faut il faut pas que l'on soit en contradiction avec nous-mêmes ñu dem ñu woote unité africaine on dit que nos nos états là nos micro-états là on peut les développer mais comment aujourd'hui une ville comme Dakar un mhm. département comme Dakar puisse avoir 19 maires d'arrondissement à l'image de Paris qui a qui, qui a 19 ouais, ouais. mais c'est pas possible mm -hmm. moi je pense que aussi dans ma vision neuf neuf communes neuf communes d'arrondissement doon na à Dakar mm -hmm. donc dañ ko calqué woon ci coordination parti socialiste bu njëkk ba. am Abdoulaye ñëw bàyyi ko fi. Mhm. léegi nag il est temps que ñu réfléchir si. jéem a changé loolu. kon boog politique moo ñu politique moo ñu andee loolu encore encore encore encore une encore fois dinañu dinañu avancer un ci li nga xam ne mooy mooy mooy waxtaan bi ñëw un peu ci sànq li nga li nga doon wax maanaam sur les politiques. parce que dañoo gis ne vraiment mairie yi actuellement bu ñu nekkee ci ñaari logique mu logique de développement ak logique sociale ci logique sociale lañu la ñu gën a nekk donc logique de développement bi dafay xaar trop lan mooy waral li ni mel compétence la wala peut-être ressources yi mën nañ ne ça ça des fois avec peu de ressources on peut aussi financer des projets de développement aussi. waaw xam nga bon au départ. c' est l' aspect politique qui qui mhm. maire bu toog su ma toogee rek maa ngi xaar sama prochaine élection. Mhm. et même au niveau étatique ah. président bu toogee rek mu ngi xool fauteuil am et yaa ngi toog di xool sa fauteuil rek xam nga doo doo doo <laughs> yaa ngi la te nit ñi boo lu neex rek doo jëm kanam. dëgg la gis nga sa doom. boo ko jox nivatine. xam nga neexul da koy wax. il faut nga nax ko jox ko mais bu la ngay xool lu ko neex di ko jox suukar rek bu ëllëgee yaa koy indil musiba yaa yaa koy créer ay sànn donc tey il faut que ñun aussi ñu am benn benn intelligence di wax nit ñi lu ñu mën mmh. et ça c'est-à-dire que le discours que l'on tient à la mmh. xaalis bi du ma ko jël pour di leen ko jox. Mmh. il faut pensons aux générations futures il faut que tey ñu xool ñun suñu environnement naka la war a doxee. et defe naa ne ñun moom Biscuiterie ci loolu la ñu taxaw. parce que man bi li ma njëkk def mooy Biscuiterie sans maa ngi dëkkoon ci ay kër yoo xam ne baraag la par la suite ñu tabax ko tabax bi ku nekk loo neex ngay tabaxee am i ma dem mais dëkkoon ci suuf ba nga xam ne le sol était infecté et je me rappelle quand je faisais le BFM il y a une étude qui a été faite qui a moo démontré que yi ñaari tali benn tali si les bisaab que ce sol là était infecté li may wax nii c'est plus de 30 moo tax taux de tuberculose yi bari fii à l'époque donc à l'époque à l'époque mhm. kon bu li maintenant c'est devenu pire moo tax ma mhm. moo tax ma ni il faut que ñu defar suñu environnement la première chose mhm. il deux cités c'est Bopp et Babouñaay qui sont en train même d'être des quartiers aussi ñëw loolu moo tax man action yooyu action l'a l'a attaqué. discuter de ça aujourd'hui je peux dire que je suis presque à 70 pour cent. Mhm. et je sais que aujourd'hui avant que may jeexal sama mandat biscuiterie dootu fi gisati suuf. Mhm, maintenant nag li ci mooy reverdir ko def ay garab pour que au moins les citoyens donc sur investissement je ne sais pas le budget peut-être que mën naa on est presque cette année on va à plus de 30 pour 30 pour cent d'investissement. 30 pour cent ci que les 500 vont aller vers. Euh, la, la euh, un milliard et quelques, un milliard deux, un milliard truc. Euh, les 500 millions vont ci li nga xam ne mooy mooy mooy investissement bi mais bu ñu ñëwaatee un peu ci ci mairie bu ñu xoolee ni ni ñu doxal y a des aspects yoo xam ne c'est simple je pense qu'il y a pas besoin même de faire beaucoup d'efforts pour régler comme lu mel ni déguerpissement da gis ci benn mairie boo xam ne pour nga déplacer wu rek c'est tout à fait un problème ay épaves ñoo fay ñoo fay nekk loolu lan lay lan lay gën a nduru. bon ça aussi faut suivre avec l'avantage des de, de la dégg plus baax nga ko def. Mhm. def naa ko një jamono yi passé. Mhm. mais après les gens reviennent. d' il faut dire aujourd'hui man mii dégg plus d' abord que je dispose de. Euh, suivi bi aussi. logistique. Mhm. tab yooyu moo leen jëlee. loolu manqué wul par benn benn amagum naa benn ñaar. il faut mu am aussi li may dégg bi il faut am il yóbbu. deux il faut mu am la sécurité la police man je n'ai de de commissariat d'arrondissement mais ñu koy tabax peut-être d'ici décembre euh, dina dina pare parce que tey nit ñi aussi il faut nga am une une certaine sécurité booy assurer mm. ensuite il faut que ma personnel de sécurité aussi mu assuré la police municipale on en a parlé. voilà voilà voilà des mairies nag am na commissariat. Grand mhm. am na commissariat mais man amaguma bu ñu paree ñu police municipale. Mhm. même bu ñu deful police police ñu créé un corps par exemple de de gilet jaune orange ou bien gilet marron ou bien gilet comme les ASP des jeunes nga xam ne comme ça genre ASC dañu leen di jël ñuy wër mairie bi. di teg nit ñi ci yoon. Mhm. mais fi ngay jaayee du foofu tegee ko nii. bul sànni mbalit mi tegoo ko fii. oto bi gaaree ko nii defee ko fii. ñu prôné la sensibilisation aujourd'hui ça va mm-hmm. boo xam ne bu modique la quoi. Mm-hmm. du leen tere ñoom ñu jàng seen jàng du leen tere aussi ñoo occupé aussi autre chose. Mm-hmm. ce qu'on a ce dans un premier temps on a de de une centaine de personnes ñoom ñoom ñoom ñooy def loolu. mais dañ ko war a yokk. et ça au moins de faire participer les jeunes au développement. de, de communautaire. donc moi j'ai besoin de jeunes comme mhm. c'est une bonne c'est une bonne yaa ngi koy wax ci relation yi nga xam da koy avec les services de l'État la police ak gendarmerie ak aspect bi mais dañuy dégg les mairies aussi des fois les de l'opposition ni les relations avec l'État neexul c'est-à-dire la plupart du temps bu ñu bëggee investissement c'est compliqué bu ñu bëggee solliciter les services de l'État comme la police la gendarmerie ou bien le préfet dafay am complication boo xam

lii daf la alors que vous avez de bonnes relations sax moo lay pousse pour que yow nga reculer xam mhm. parce que des fois euh, parce que des fois c'est le préfet préfet bëgg coow am des fois dëkk am coow les ay événements ne la bul indi coow ci biir ay coow mhm. parce que xam nga Sénégal yi des aussi dañuy profité si certains événements pour def quelque chose xam ne parfois aussi du noonu def ay occupation irrégulière mhm. nga ñëw ba leen bëgg bëgg ñu ne la dañuy daan suñu doole commencé revendiquer et tout ça. alors coow yooyu su doonee am mu am confrontation entre yow. ak ñooñu préfet dafa am woon la ne la ne la reculer. loolu loolu loo l' état des fois ses intérêts lay lay lay gérer. non dafa ay intérêt lay gérer xam neex rek. du demee noonu il faut que aujourd'hui que ñu tëj leen tëj un discours de vérité. bu ku nekk nga def lu la war a neex lu loo euh, neex. et j'ai bien aimé. Euh, Khalifa Sall quand il t quand il était maire avec les marchands ambulants. Mhm. am na gestion vraiment j'ai bien aimé. Mhm. j'ai bien aimé aussi Moussa Sy quand il était maire bu mu ñëwee déggee pire lépp mais maintenant euh, l'État euh, pense plus à la quiétude des populations. Mhm. pour préserver moom son image politique. que ñu wax population yi dëgg wala ñu wala wala wala ñu affronter leen ci yenn yi. et nag maslaa bu ëpp aussi des fois dafay yàq. c'est vrai dafay donc je pense qu'aujourd'hui euh, façon moi je l'ai pas senti. Mm -hmm. et je sais qu'aujourd'hui privilège yi ma am moom lay yeneen maires yi am. parce que euh, une mairie comme euh, les mairies d'Escap wala mairie euh, Parcelles Assainies li ñu am man aw ma ko. Mhm. donc ça dépend kon loolu dañ koy wax nii donc mën na masquer mën na masquer donc sànq yaa ngi koy yaa ngi pense que duñ ci duñ ci mën a duñ ci mën a taxaw lu yàgg il reste aussi le euh, le le rôle des mairies ci li nga xam ne mooy développement bi mais aussi sur les jeunes parce que je pense que ni actuellement ak ni réew mi ak ni mel ak ni réew mi yëngu ni xale yi jëlee li nga xam ne mooy mooy gaal gi c'est une actualité maanaam immigration clandestine bi rôle bi nga xam ne mairie war nañ ko jouer ci aspect bi aussi nan la ñu war a mën a organiser wu ba les maires aussi jouer leur rôle parce que comme on le dit développement bi ci suuf la war a jógee yéeg ci kaw. bon le maire le maire par essence c'est un père de famille. Mhm. moo tax ñu tuddee di jouer rôle yaay. Mhm. Euh, li ñu mën mhm. la jeunesse. et les les occuper Euh, maintenant on n'a pas vocation amuñu vocation pour créer des emplois waaye war nañu mën a susciter tuuti ay emplois mm-hmm. et loolu dañ ko jëm li ci des nag mooy essayer d'aider la jeunesse sur certains points et ensuite leur tenir quand même discours de vérité pour wax leen ne vraiment Euh, gaal gi du. c'est pas la solution voilà du du yoon quoi. et je pense qu'aujourd'hui euh, dans beaucoup d'aspects ñu koy jëm. Mm-hmm. et nous nous essayons de de développer l'industrie culturelle et l'industrie sportive. pour mm-hmm. pouvoir occuper la jeunesse. Mm-hmm. et aujourd'hui même je ça je parle pas en tant que maire et en tant président de la Ligue professionnelle de football. ñu ciy tenir ay message au niveau de la jeunesse boo xoolee semaine bi yëpp dans euh, dans notre championnat on dit à la jeunesse que gaal gi li nga xam ne parce que le sport aussi mën na mën na jouer rôle bëri bi mhm. Mhm. et culture bi bon maintenant nag euh, nous avons eu à tenter des euh, ci ay période très difficile comme par exemple période Covid bi on a eu à organiser un navétane navétane Covid jël xale yi ñu dem di sensibiliser nit ñi. Mm-hmm. et durant les vacances aussi dañuy jël xale di leen pour que ñoom ñu nettoyer les écoles. les mm-hmm. jeunes au niveau des ASC. c' mm-hmm. est comme ça parce que là si ma nous au niveau de Biscuiterie notre subvention est conditionnée. il faut nga remplir certaines pour que nga mën a yenn subventions yi on demande aux ASC de participer à l' action communautaire au